bismillaahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñi ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm fii ci kër sëriñ tuwaay gi nga xam ne moo jàkkaarloo ak jumaa ju mag ji kon bu ngeen gisee jataay bi xam ni ñi fi daje tey ñooy waa ahlul quran karim jublu gi nag mooy fas yéene jëfe ndigal loo xamante ni mi ngi tukkee ci cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général de murit amee itam ci njiitalu sëriñ Xabbaan ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal mi nga xam ni moom la sëriñ bi taxawuloo njàngum alxuraan mi ci Touba ak li ko wër ñu fas yéene leeral leen programme bi nga xam ne moo aju ci njàngum alxuraan mi ci weeru safar wu tedd wi nga xamante ni ci la jëm muy programme buy door benn bis ci weeru safar ba fukki fan ak juróom ci mbaar mi nga xam ne moom la isbu tarixiya taxawal ci buntu kër Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke mu jàkkaarloog jumaa ji bu loolu jàllee itam ñetti fan yi nga xam ne moo ciy topp la ci dale ba ñetti fanu màggal gi am na itam programme boo xamante ni dinañ ci njàng mi suba ak ngoon loolu bu ci accès kilifa yi dinañ ko leeral incha allah ñi fi war a jël kaddu mooy Serigne Khady Diakhaté ak Serigne Cheikh Ibrahima Sy ci leeral gu ñuy leeral ndigal loolu bu ñu noppee Serigne Omar dina ci jël kàddu leeral mboolem li nga xamante ni moo aju. ci wàllu organisation bi ak ni nga xamante ni ne lañ koy taxawee bu ñu noppee nag kàddu yu mujj yi doon kàddu yoo xamante ni kàddu Serigne Xabbaan Mbàkke lay doon muy kàddu yoo xamante ni Serigne Cheikh Xaadim Mbàkke incha allah moo ko yékkati kon noonu la jataay bi demee ñu jox kilifa yi kon ñu dikk ci leeral aousu billahi min alcheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummati ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ndokkeel ci barab bu tedd bii eh, di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi ñaanal saahibul fadila sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu borom yokk aw fanam ak wéram gën koo kàttanal ba liggéeyu lislaam bi nekk ci loxoom yóbbu ko fa kaw njort yëpp te ànd ko moom ci barkeb sëriñ bi euh, ñu nuyu leen ci turu sëriñ Mahamadul Xabaan mi nga xam ne moom la sëriñ bi taxawuloo liggéey bi ni ngeen ko gisee ñu ànd ak jëwriñ yi nga xam ne ñooy taxawu njàngum alxuraan mi ci dëkk bi euh, sëriñ bi yee salaat ndigalal fonk gën a fonk alquran ji ndax xam moom naka jekk xam ne ni ñu ngi ko doon jàng waaye ñu bu màggal jubee nag yokk yi yi kenn ku nekk lu mu daan def ci lu baax mu dolli ko ginnaaw ñun suñu waar nag moo nekkoon téere bi loolee ñu yokk ko nga xam ni bu benn fanu safar teroo na mu daan baaxoo am daara yëpp kenn ku nekk tobbi aw sas ca biir la nga daan def di jàng alxuraan ca daara ya ba ci kër yi sax ku ko ci man loola sëriñ bi soññeewaat na ko waaye teewutit nañu tëral ay nosin yoo xam ne e, dana am ci biir dëkk bi muy fii ci pénc mi ci baasu isbu tarxiya bi nekk ci buntu kër Cheikh Mamadou Fadal e, li ko tàmbalee ci benn fanu safar ba fukki fan ak juróom dana am njàng mu yaatu moo xam ne mm. dana fi am e, ci jëw jëwriñu sëriñ Mahamadou Xabaan ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko dénk di ci jàppalante ak Hizbut Tarqiyyah loola it nose nañ ko noo xam ne waa organisation bu ñu dikkee danañu ko faram-fàcce ba euh, dëkk bi euh, quartier yi dafa bari te yaatu kon du duñ ne bis bu ne benn quartier waaye bis bu nekk am na am na ñuñ woo ndax suñ ko wootee noonu rek mbooloo mi duñ xajandoo ci barab bi moo tax ñu nose ko nga xam ne li ko tàmbalee ci première safar ba 15 safar incha allahu taala bis bu nekk am na ñoo xam ne ñoo war a ñëw dundal barab ba ba euh, julli tisbaar xeewlu euh, yeewi ko loolu waa organisation dinañ ci gën a yaatal waaye ñu ciy soññi bokk yépp di leen ci bàyyiloo xel bu baax a baax a baax a baax xam ne euh, sëriñ bi defalee su ko lu ko gënal jàngal ko alxuraan ci lépp lu mu doon mépp mbiram mu mu doon alxuraan di ca jiitu di ca bokk di ca mujj mooy la ko gënal moo tax njàng mi kon ci li tàmbalee ci première ba 15 safar dina amee ci baasu isub tarxe bi nekk ci bunt ko Cheikh Mamadou Fadel waaye it ci biir màggal gi noonu lay continuer ca jullikaayu iid ba le 17 ak le 18 ba ci le 19 te ba ñu ba ñu moom it am na fa njàng moo xam ne njàngum alquran lay doon. Cheikh Mahamadul Basir di ñëw ci bu ñu nee di 17 ubbi si liggéey ba ànd ko ak ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi yebal euh, muy liggéey bu am solo moom tamit nga xam ne diirub ñaari fan yi màggal gi njàng mi noonu lay wéyee bañ fanaanee màggal ba julli suba ñu door a xat xatmu loolu it di liggéey bu ama am solo noonu it lay amee euh, tari bi nga xam ne gone yi daanañu ko tari alquran ci ndigalal sëriñ bi euh, ñuñ ca déglu saytu seen alxuraan ba mu wér cëng ñu jox leen sahaada boo xam ne ci turu xalif général de Mouride lañ leen koy jox loolu it doon léggéey bu am solo bu ràññiku bu yaatu boo xam ne incha allahu taala moom it dana ànd ci liggéey boobu te du dàqonteeg njàng mi dara it du ca euh, gàllankoor moroomam ndax ñi nga xam ne ñoo nekk ci waar wi ñëpp rek kenn ku nekk day jóg taxaw ku ne am fu mu jàpp kon loolu euh, képp ku dégg suñ kàddu ñu ngi ko cey woo ba ci koo xam ne jottali nañ ko ko fu waay nekk rek bu ko yëgee ne yëg ne sëriñ bi soññ na ko bëgg mu yokk yitteem ci jàng alxuraan ak taxawaay yokk ab taxawaayam ci alxuraan noonu la koy diglee ci xaside ña ko yor danañu ko soññee ñoom tamit waaye daal dafa bëgg moom ñu daasaat yitte yi eh, te dëgmal bis bi te xam ne lépp lu ñu am gannaaw yàlla boroomam a tax te Cheikh Abdoul Ahad waxoon na ne gor soo mas a gis mu dee ci barab teraangaa ko fa rey eh, ka ko teral mu ne bu ma fekkee bisam ñun nag nattable wuñ ne sëñ Tuubaa ñu teral kon nag bisam bii wan ko ne koy ay gor lañu te yëg nañ ne teral nga ñu te liñ man lépp daañ la ko ci defal rawat na ci alxuraan gii ñu nekke yàlla nañ ci dajeek tawféexi suñu borom asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. képp koo xam ne yaa ngi jàkkaarloog nun wala ngay dégg suñu kàddu ñu ngi lay nuyu nuyoo ba gën a rafet ca nuyoo ya ab jullit xaqan di nuyu mbokkam jullit di la siyaara siyaara ba gën a màgg ci siyaara ba ci siyaara ya almuridu saadiqu di siyaara murabbiyahu wa wasilatahu ila alxadimi albaaqi di sàkku sunu borom di sàkku ci sunu borom tabaraka wa taala bi kulli tadarruin wa bi rajain mu nangul nu mbooleem ñaan yi nga xam ne al muslimuuna al muxlisuuna wal muriduuna saadiquuna ñu ngi koy ñaanal cheikh mouhamadul muntaxa di ko yalwaan mu defal nu bëgg-bëggu sëriñ bi rekk di suñu bëgg-bëgg di ko sant ci baaxe gi mu nu baaxe ci ñoo xam ne dañuy dem ca sëñ ba di ñëw ci ñun di ñu indaaleel ay bëgg-bëggam ak na mu ko bëggee bu dee ñun ahlul quraanul karim bokk na ca ñooña Cheikh Mouhamadul Xabaan Mbàkke moom El Hadj Mouhamadou Fadal mi nga xam ne ndigal ak bëgg-bëggu sëñ bi ak na ma ko bëggee bi mu jaroot moo waral mu woote jataay bii am ngant moo tax gisuñu ko fi waaye nag yàlla def na mu boole ñoo doomam joo xam ne jii at yi néew na waaye pas-pasam rëy na yëg-yëgam rëy na wax dëgg yàlla it seddaati cër ci moom réy na ndax liggéey bi lu ne mi ngi ko ciy daj mooy sëriñ Abdul Fattah wa ma sayidna ila bi ma alim na wax dëgg yàlla at yi bari xut waaye yitti ji rëy na lool pas-pas bi rëy na lool te it nag xam nan nan lay àndeek ay mag mu boole ñoo moom ngir ñu waajal te teeru bis bu mag bi ci sunu kanam di 18 safar waajtaay boobu ak teeru googu moom Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam moom Cheikh Mouhamadul Xabaan mi nga xam ne mooy jawriñu sëñ bi ci lépp lu aju ci alquranul karim waajtaay wi ñu koy def ak moom wi mu wax ne nañ ànd ak moom def ko mooy bi tilaawat alquranul karim ci lim bu takkoo takku boo xam ne bii su mënoon a am bila nihaaya mu am ko waaye nag lim boo xam ne bii jéggi na dayo ak sell goo xam ne gii jéggi na dayo ñu teertoo noonu bis boobu su sukkuran lillahi wabtixaa a mardaati kon woote bi mu ngi noonu képp koo xam ne kii jullit bu ko dégg càkku téef la ci yow nga def ko te defee ko noonu ñu ko waxee def ca la nga man ak la nga manut te sellal ko su fekkee ab taalu bi la ndigal la ndigal la loo xam ne da nga ko war a jëfe kon ñi ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may nu kattan ak pas-pas buñ ko defee defin woo xam ne bii dana raw na ko sëriñ ba yaakaare woon liggéey bi nag njàngaleem alxuraan lañ woote waaye ñuy jàng alquranul karim it nag yàlla dafa def hum min bani aadama ñu ngi bokk ci doomu aadama yi dañoo am ay soxla jàngam alquran mi nag julli rek mooy tax ñu dagg ko wala yenn soxla yi ci des soxla yooyu bokk na ci ku ci wóorul ci ñun da war a naan ku ci wóorul ci ñun da war a lekk kon nag ci lu ma amul may may waaye képp koo xam ne kii mën ngaa boole jàng alquran ak teral ñi jàng alquran ñi ngi sakku ci yow nga jàng teral ñi jàng alquran koo xam ne kii am nga ngànt ci jàng alquran te nga am loo terale ñi jàng alquran ñi ngi sakku ci yow nga def loo mën ci teral ñi jàng alquranul karim teraanga yi na bari te wuute te tege ci yoon te def lépp ahlul quran kuy teral ñooñ ahlul quran ngay teral ñooñ ñooñ ahlul nag moom wax dëgg yàlla yastahiquna bi kulli takrimin kon lu ci waay am lu mu bari bari bari ak nu mu mën di toll ngir teral ñi jàng alquranul karim bu ko naw lu ci waay am lu mu tuuti tuuti sëñ bi bu ko xeeb indi leen ñuy jàng alquranul karim yàlla nañu yàlla defal tawfiq ak taysir bi ni ko sëñ bi bëggee ñu defee ko ni wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokk yi noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar di ñaan sëriñ Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te wér di leen nuyoo fii ci kër sëriñ Touba gi jàkkaarleeg jumaa ji di sof sunuy kàddu si kàddu jëwriñ ji jiitu. di waxee ci wàllu organisation bi ci njàngum waajtaayu màggal gi li nga xam ne fas nañu yeneen nosee ko njàng moomu nga xam ne moom la sëñ bi santaane sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te te jiital ci sëriñ xabbaan mi nga xam ne moom la dénk daara yi mu ànd kook sëriñ xaari jaxate mi nga xam ne moo jiite raabita bi ak Baye ibraahima si ak mbooleem sëriñ daara yi ak leeram gii di sëñ Abdou Fata ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi ñun ñu féetale ñu si wàllu organisation bi li jëm ci loolu ñu fas yéene organise ko organiser bu mucc ayib te di fàttali ñëpp nañ bëgg ñu gën si taxawee la sa jiitu ñu jiital sa lool yar ak teggin ci wàllu ni ñuy ñëwee ak ni ñuy jàngee ak niñ koy doxalee ngir loole it li tax ñu koy fàttali mooy Sëriñ Tuubaa léppam dafa tënku ci yar ak teggin ci jàng ak ci jàngale ci yëngu ak ci dal ci liggéey bu mu mën a doon dañ ko siy sàkku ba tax nañu ñi nga xam ne ñooy yor wàllu organisation bi ñu ngi woo mbooleem sëriñ daara yi ak tuut tànk yi ñuy àndal ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax njàng mi ñu fexe taaral ko lool ci yar ak teggin ngir mu gën a neex a teg ci kanamu sëriñ bi ngir it buñ ko defee ba noppi ba teg ko ci kanamu sëriñ bi sëriñ bi gërëm ko ndax lu mu si mën a doon nag ngërëmul yàlla ak ngërëmul sëriñ bi rek lañu si sàkku ngir mu yomb nu nag faw ñu jiital si yar ak teggin kon bu boobaa niñ fas ne nosee ko mooy bis bi nga xam ne mooy benn fanu safar insha allahu taala bu ñu si yàlla yóbboo bëgg nañ si woo quartier daaru xuddoos ak daaru rahman kër sëriñ Sohaybou bis ba sa topp bëgg nañ si woo surra ak Gede bis ba sa topp bëgg nañ si woo Touba Mosquée ak guy mbind bis ba sa topp bëgg nañ si woo daarul minnan ak daaru tanzil bis ba sa topp bëgg nañ si woo madiyana ak saam bis ba sa topp bëgg nañ si woo xaahira ak daarul mannaan bis ba sa topp bëgg nañ si woo ndindi ak baxdaad 2 bis ba sa topp bëgg nañ si woo ndaam daarul alimil xabir ak lasar bis ba sa topp bëgg nañ si woo ndaamaatu ak ngelemu bis ba sa topp bëgg nañ si woo daaray soxna yi si njiital soxna maam bis ba sa topp bëgg nañ si yoo Kër Ñang ak Mbal bis ba sa topp bëgg nañ si woo Touba Njaarim ak ga bis ba sa topp bëgg nañ si woo Aliya ak Asalem bis ba sa topp bëgg nañ si woo Jannatul Mahwa ak Buqaatul Mubaarak karti yii ñu woo am na yu ñu tuddul waaye ci niñ ko organisé mooy am na bis yoo xam ne bu ñu wooyee ñii danañ woo ñeneen ñu bokkul ak ñoom lii li tax ñu tudd ko dafa fekk ne ab liggéey boo koy dox faw nga nos ko faw nga organiser ko ni ko Baye di waxee léegi yaakaar naa ne ñun ñëpp dégg nañ ko mënuñoo woo ndoo ñëpp bu boobaa bu ñëwee xajuñ si pencum jumaa ji du neex a organiser tam ni ñuy def rek mooy dañuy woo par ay quartier kon am na yu yuñ tuddul des na leen woo incha allahu taala waaye li sa gën a yitteel daal mooy njàng mi bëgg nañ mu rafet lool te nasu lool te ànd ak Pastef lool bu dee heure yi bëgg nañ lu mu naaj naaj naaj huit jàpp neuf heures nañ tasee si buntu kër sëñ Fallou si baasu Hizbut Tarqiyyah yi comme ni ñu ko waxee nekk fa di jàng di jàng di jàng ba julli tisbaar yemale njàng mi foofu ba ëllëg a teg jàmm incha allahu taala lii daal ñu ngi si soññi képp koo xamante ne maanaam yaa ngi yor daara wala nga yor dongo wala nga mën a jàng alxuraan sax te yoroo daara Baye Xaadi nag wax na loo xam ne it lu mat a bàyyiwaat xel la nañ xam ne njàng mi. du caageen ne dañ ko woote ci pénc mi rek fi la dalee fi la yem déedéet ndax ku ne xam na ne sëriñ daara yi bu buñ ne safar taxaw na ak ñeneen ñu dul ñoom te mën a jàng alxuraan dañ koy jàng sa seeni daara di ko jàng sa seeni kër ba ñëwee ci pénc mi waaye duñ seyam dañ koy jàng sa seeni daara di ko jàng sa seeni kër di ñëw ci pénc mi di ko jàng ànd ak moom ànd ak safar ji ba ci fan yi mujj ñu koy jàngee ci penku jumaa ji loole it bàyyi xaadi ak waa rabita bi di ci def liggéey bu ama ama ama am solo di si jàng kaamil yu bari lim yu baree baree bari kon daal ak lu mën a xew mooy njàngum safar mi la sëñ bi soññe di si soññ mboolem ahlul quran waa raabita bi daaray alquran yi sëriñ daara yi dongoy daara yi ñi mën a jàng te yoruñ daara góor ñi jigéen ñi bàyyiwuñ kenn waaye si organisation bu rafet a rafet rafet bu ànd ak teggin ndax kat ku tudd Serigne tubaa tudd teggin ku tudd Serigne tubaa tudd Pastef ku tudd Serigne tubaa tudd organisation kon yéen sëriñ daara yi yéen ñi dëkk ci quartier yi ñoo ngi leen di ñaan quartier bu nekk ña fa yor wàllu organisation boo leen demee ngeen jën si waxtaan ak ñoom bu baax a baax ci nosin bu rafet bu ànd ak Pastef bu ànd ak di ñëw heure di wàcc heure ak organisation bu rafet man nag foofu duma daaneel te santuma sëriñ Youssou Diop ak ñi mu àndal ndax njàng mi ñi koy taxaw si laa bokk te gis naa ne buñ fa demee di jàng taxawaay bëgg na yell ñu ngi koy taxaw sëriñ daara yi loolu moom teg naa si bët kenn waxuma ko kon nag faw ñu beral leen seen sant ñoom it te xam ne loola ñuy def itam sëriñ tubaa lañ ko defal ndax ñoom waa bu tarqiya yi ak sëriñ daara yi sëñ bi moo leen boole njàngum alxuraan mi kon lu si waay def rek sa bopp nga ko defal waaye lu si waay def sëriñ mu taxaa nga ko defal ñoo ngi daaneel foofu sunu kàddu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di sant ñëpp di gërëm ñëpp ngeen jëf bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilah wasalaatu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi santaat yàlla sunu borom bi tabaraka wa taala julli ci yonenteem bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam sant sunu yaakaar cheikhul xadim di ñaanal cheikh muhammadul muntaxa sunu borom bi yàggal ko fii lool te wéral ko mën naal yi mu am ngir liggéeyal ko cheikhul xadim lépp sunu borom bi sottal ko ci kàddu Cheikh Mouhamadou Xabban Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Fadal ñu siyaara bu baax a baax sëriñ Abul Baraka mi nga xamee ne moom mooy xalifa Cheikh Mouhamadul Fadal ak mbooleem njabootuk Cheikhul Xadim gi yépp ak mbooleem taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara waa ahlul quraan nag ci kàddug Cheikh Mouhamadou Xabban Mbakke Fallilu mooy santaat bu baax a baax ci li nga xamee ne weesu na ci liggéey yu sell yi nga xamee ne doon ngeen ko def ci defin woo xam ne nii defin wu rafet la mu wax ne mi ngi koy seedeel yàlla sunu borom bi te di ko seddal sëriñ bi ci neex ànd gi nga xam ne neex ngeen koo ànd ci lépp loo xam ne nii Cheikh Mouhamadul Muntaxa woote na ko mu jëm ci wàllum jàngum alquran seen taxawaay yu rafet yi nga xam ne yéen a ngi ko ci taxawe buñ ko tàmbalee nag ci sëriñ xaali jaxate ba ci sëñ Ibrahima si mu mën a yóbbaale mboolem kuñ tuddut sëriñ bi wax ne mi ngi sant ñëpp te di leen gërëm bu baax a baax a baax la ca des nag moom mooy bis bu tedd bi nga xamee ne ñu ngi koy jublu si mu nekk bis boo xam ne nii sunu yaakaar Cheikhul Xadim ci la génnoon ngir liggéeyal yenente bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallama waaye ngir liggéeyal diine lislaam loola nag xéewal yu tedd yi nga xamee ne indaale na ko tax na it saa yu dellusee mu sant ci ñu ne na ñuy fexe ba di ko ci santaleel yàlla sun borom bi tabaraka wa taala booy sant yàlla sun borom bi nag war na nag ki nga xam ne moo tax li tax tax nga bàyyiwaale ko ca xel bu baax a baax a baax mooy sunu yaakaar cheikhul xadim loolu moo tax ndigal bàyyee ko waat ci kilifa gu tedd ka Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu jëm ci njàngum alquran mi nga xam ne wax na ne nan ko gunge bis bu tedd bi mu jaar ci Cheikh Mouhamadul bashir mi nga xamee ne moom mooy mi nga xam ne moo jiite comité d'organisation bi Sëriñ Xabban Mbàkke wax ne mi ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm ci taxawaay yu rafet yi nga xam ne ñu ngi koy taxawee jëm ci mboolem murit yépp comme ñi nga xam ne ñi jiitu noonu lañ ko waxee rek organisation bi noonu rek la war a demee incha allah mu wax ne nag ñi ngi ci ko waat ñëpp di leen ci bàyyiloo xel ci ñu xam ne li ñuy def cheikhul xadim radiallahu anhu lañ koy defal bari gi am na solo lool waaye am na lu ko ëpp solo te mooy sellal gi sellal gi moom la gën a yiitewoo ci bëril gi mu wax ne nag fële ñu koy defee ca mbaarum xes xisbu tarqiya muy mbaar mi nga xamee ne ma nga ca buntu kër Cheikh Mouhamadul Fadal ñi di ko ànd ak Serigne Youssou ak ñi mu àndal ñëpp ci taxawaay yu rafet yi nga xam ne ñu ngi koy taxawee Serigne bi wax ne ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax ci seen i taxawaay yi waaye tamit nag ñu bañ a fàttewaale ci ne it xasaidil qadimiya yi ci la bokk ndax daaw niñ ko daan doxalee mooy alquran day yëkkati. waaye tamit nag xasaayid yi dafa yëkkati ko ñaar yooyee lañ fa daan boole ñaar yooyee lañ ko daan dundalee mbooleem ñi nga xam ne it ñoom ñooy waa xisbu tarqiya ca ni nga xamee ne bëgge woon nañ ko mooy mbooleem gox yi ñuy woo bépp gox boo xam ne nii amaale nga ab kuréelub xasida rawatina nag ay jàngikati alquran yu jàng xasida moom loolu tawféex lay gën a nekkee mooy ñooñe moom ña nga xam nañ xam ne am nañ ci wàll ci bis bi bu baax a baax a baax loolu lu ñuy fàttale waale la sëriñ bi wax ne nag mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam ne ni it mbir mi mbirum ñëpp kenn bàyyiwu ci wala yit kenn du ci bàyyi it ndaxte kiñ koy defal moo neex a defal lool waaye tamit nag kiñ koy defal nag danoo jël mbir jox ko boroom lii ñuy def muy alquran cheikhuna cheikh ahmadul xadim moo ko moom loolu faaw ñu bàyyee joxe la loolu yi du suñuy du suñuy wax sëriñ Tuubaa moo ne malakani alqurana tamlikan yaduum man mankat yàlla sun borom bi mooma moomale alquran ci moomale goo xam ne ni day sax dàkk nag yaduum comme que moomale guy sax la nag saa su nekk loolu rekk la ñuy jéem la ñuy bokk ci ñi nga xame ne dañuy saxal loole bokk ci ñi nga xamee ne dañuy maanaam sëriñ bi bu ëllëgee dinañu puugare woo ci ñi nga xamee ne dañ daan yëkkati wala faxe nañ ba mbirum alquran moom du taxaw mukk yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu fekke ko te lépp luñ ci def mu nekk loo xam ne nii lu sëriñ bi nangu la ndax lépp lu ñuy def loolu rek lañ ciy jiital mooy sëriñ bi nangul ñu li ñuy def euh, loolo mooy li nga xamee ne moom mooy sunu taxawaay ndax danoo jàppe ne mbir mi moom mbirum Cheikhul Khadim la ndax daa waxoon ne li ma moom mooy téereb yàlla bi këndil kitaabu wal xadiis wal adab la jamau fiddatin wala jamau dahab wax na ne li ma moom li nga xam ne mënees na ma ko moomale borooma ma ko ne man lii man maay borom mooy téereb yàlla sun borom bi tabaraka wa taala ak waxi yonente bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallama kon yeneen ak ay teggini nag yeneen yu dul loolu kon day mel ne moom dañ ko ko bo dañ ko dañ ko jox defe na sëriñ bee ko moom waaye sëriñ bi moomu ko Cheikh Mouhamadou Xabbaan Mbàkke moom Cheikh Mouhamadoul Fadal di sant ñëpp nag di gërëm ñépp ci taxawaay yu rafet yi tey soññee te xam ne ndigal ñëwati na ndigal nag mbokk yi jëfe rek rek da sëriñ Tuubaa waxoon ne ci sifaatu saadiqil murid yi wax ne kat am murid dëgg-dëgg bu ñu xàmmee ne dëgg-dëgg murid la mooy lu mel nii thumma imtithaali amrihi xaysu mooy mu jëfe ndigal li fu mu fi man di rote nag rawatina nag bu nekkee ndigal loo xam ne ni ndigalu bànneex la ndigal loo xam ne nii dafa ñëw ci ahlul ahlul quraan waa ahlul quraan war caa dox yaakaar nañ ne sunu borom dina ci def ndam lu wér a wér a wér sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñu xam ne rek liggéey baa ngi noonu nan ci dox bu baax a baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf euh, sëñ Cheikh Khady Mbacké jërëjëf jër jërëjëf Serigne Khady jaxate ak Serigne Cheikh Ibrahima si ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati nañ ko ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ak ci ndigalu Serigne Mouhamadou xaban mi nga xamante ni moom la Serigne bi taxawloo njàngum alxuraan bi kon muy njàngum alxuraan mi nga xam ne ci weeru safar yi lañu koy def ci mbaar mi nga xam ne moo nekk ci buntu kër Cheikh Mouhamadou Fadel jàkkaarlook jumaa ji ak li nga xam ni ci jullikaay it bi ni ko Serigne Khady fàttalee ñi ngi koy def ci ñetti fa yu màggal kon nag mboolem daara yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir dëkk bi kenn ku ci nekk ak ci quartier bu mu nekk am nañu bis boo xamante ne woo nañ leen des na leen yëggal itam bataaxal bu leen koy won ñu sàmmonteeg waxtu yi muy juróom-ñetti waxtu ni ñu ko waxee te def ko njàngeen mu sell ni ko sëriñ bi diglee di ñaan suñu borom ci barkeb sëriñ Touba mu yegg leen ci ak jàmm ñu def ko ni ko sëriñ Touba diglee sàkku ci ngërëmam te am ko ci di ñaanal Cheikh Mamadou Muntaxa mu yàgg fi te ànd ak wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu